ak réew mi toll. ah fii réew mi toll ñuy fayeeku impôt du ñu fayeeku ñun suñuy wax. formation ki ci sax mi ngi ree <laughs> yaa ngi koy rey. <laughs> mu toll. fa la réew mi toll léegi bu ma tëjee ci wàllu. presse je pense que li xew nii. ah. c'est même bien pour que chacun sache qui est qui. Mm. mais il va falloir qu'on échange qu'on discute Ni ci dox ci mais une chose est certaine. et c'est possible d'ailleurs il faut à un moment donné qu'on arrête la manipulation de tous bords. Mm. que ñu nekk ci dëgg. kon yow kon cautionné woo tey sortie bi presse bi am. sortie c'est-à-dire. sortie bi am après la sortie de Ousmane Sonko menacé nous menacé euh, Ousmane Sonko dafa war a bàyyi presse libre c'est comme si que Euh, ngi ñuy tegal ay ndëgg sërëx yoo parce que non non kii soxna si menace bi ci liñ gën a commencé mën affaire. oui. Euh, ñi nekk ci presse bi ñoo ñu ëpp xam-xam. Mhm. kilifa yi di wax ni ñoo ñu gën a xam. Mhm. ñoo ñu Ni on dégg ñoom ñu ils maîtrisent le le sujet et leur sujet. Mhm. mais soo bëggee dégg la rupture est annoncée et il faut être dans la rupture. aujourd'hui monsieur Sonko wax il y yow ce journal nga yor. Ah. bindal sa rajo nga yor waxal cest télé libre nga leur réplique. Mhm. am ci droit ken ko mais il faut que nous comprenions bien affaire. Mhm. ki nga war fay. fay wala tanke que mom ko neex mu à un moment donné. Mhm. moy tour mom kay lañ yalla na ko ba du jéggi fenn fi ba du egg mais dana wax parce que ya ko may opportunité mu wax. Mm. ya verser impôt sur le les chiffres bénéfices déclaré woko

mais day am press presse mhm. nak mhm. day am ñuy continuer am mhm. ñuy yam fa am ñuy la vie est ainsi faite donc ñi nga xam nak ñu ngi ci ta xam ko te mën ko nañ presse bi nga xam ne nag xulil dafa am nguur bu fi sos ko créé ko de presse bu fi nekkoon nguur gi fi sos ko bu teguwul ci yoon laa la wax yoon bi nga xam ne information normale sérieuse et honnête. Mhm. day disparaître. waaw. dégg que wax bu fi nguur bi fi nekkoon laa wax mhm. teg bu nekkul ci yoonu dëgg day disparaître. ñu ciy sous-entendre li ko doon accompagner eh, dina ci ànd également. Ah, tax bu fekkee dañ la doon defal perfusion injection nangam nangam. kala ko doon jox nekkatu fi. léegi boo xefee ki nga xam ne moo fi nekk te yëg na da la ko doon jox. Mhm. moom day toog di la xool rek. léegi Pa dafa opposition bi ñom dañu japp ni Ousmane Sonko dafa nar gouverner opposé comme le dit Thierno euh Bougane Gueye japp ni jamono ji liko war mom modi mu tontu ci laaju askan wi tabaski mi ngi ñew euh, ñu ngi koy laaj wañum dundu gi muy wote di politique heure politique jotul solo ñom c'est leur avis à respecter point par je, on respecte man ñun dañoo tuuti. respect ñu respecté leen ko. non parce que askan bi ñoo wax askan boobu dafa ànd ak kee. Hmm. lii fi ne di. mbiram cekket la cekket xam nga cekket dañ na politique wees na jarul woon woote di politique di woote di bu bàyyi dama ne libre de dire et de penser ce qu'il waaye askan boobu nuy waxal laa la wax askan boobu tànnul A. Hmm. tànnul B daa am fekk fekk tànn kee te kooku mu tànn moom moomee vent. léegi nak moment bi mu moomee van hmm man mi luma ma mënti wax lu andul ak lol nit duñ ma faale. xana bàyyi bañu talma rek faale ma. man buma ma nekkoon opposant dama nan tek ba ci kanam. waruñu wax comme tu l'as dit au début. tek ba ci kanam jarul wax. c'est trop tôt pour ñu opposer c'est trop tôt. il faut savoir s'éclipser quand on n'est pas à l'ère du temps. <laughs> da nga wax bi. Mm, làqatu ma si. quand manam mbir bu xewé mbooloo mi yépp tek la fa doxal sa dox rek humblement gérer sa bop nek ci di liguey nak di organiser wu. bu wax. dossier Mame Mbaye Ousmane Sonko nee rapport baa ngi ci am yalla yalla suñu borom ñun dañoo bokkon ci ñi doon wax ne rapport bi amna ñi nga xam dañ doon wax ne rapport bi amul nañu génnaat tay wax ne rapport bi amul ño xam ils sont libres de le dire qu'ils viennent prouver que rapport bi amul maintenant ce n'est plus maintenant prouver que le rapport existe. c'est mm-hmm. maintenant prouver que le rapport n'existe pas. yàlla dafa bëgg dëgg soxna si mu yéex mu gaaw rapport am na ñu ne rapport am ministre bi dem ba wàcc. ñoo ne woy sama àqulaay taala laay wax rapport am na non rapport boobu di di dem di dem di dem ba demaat ca bureau kañ doon wax ne rapport amul tax xañ ko élection ndax lool. rapport baa ngi ci kaw table mu ñëw jàkkaarloog yow wax la ko nan ngaa def liw da liw da liw sedd guy xulil ni nemm nag toog sa coin. On, est parti trop loin, et on vient de loin. Et le Sénégal a été si ridiculisé. Donc, injustice dafa jaar fait fekkee tey euh, dem nañ ba prouver nag euh, euh, ci ci li ñu doon wax tey jii mi ngi ci table ba justice def ci lum ci war a def après ñu wax tout ça pour ça. Ah, ndaxte ay nit faat ngeen faat ci ay nit sànq ci ay nit. et qu'est-ce qu'il dit monsieur Sonko que vous allez devoir payer pour cela. Mm-hmm. c'est un temps c'est menaçant. Mm-hmm. ngay ko ko wax. des mm-hmm. yow nga def ko mm-hmm. ah ouais. a faat ay fausseté ci l'histoire de Adji c'est quoi. Il def a des amnistie. ce monsieur là il sort voulu injustice il sort il parle ne ni mu oui, oui, sur le plan de la com, c'est vrai, il peut voilà, corriger. Oui, il doit corriger à un certain niveau. Oui, mm. ce n'est plus Ousmane Sonko opposant, c'est le Premier ministre. Oui, il faut qu'il corrige à un certain niveau. Oui, je suis d'accord, il doit corriger à un certain niveau. Oui, je suis parfaitement en phase. Mm. Sauf que, il y en a qui ont pour Madame, il y en a tech injustice, tech, tech, tech, tech, il y en a qui élection. Mm-hmm. Mais il y a le def barkem, mm-hmm. ci barkem nit fallu ci. Légui mu ñew taxaw di safonté ak ay xalem. Mm. Nga du safonté ak xalé. nga ne loolu politique la waa d'accord mais xale yooyu. ñoo ko accompagner mu gagné ba mu gagné ndaje ba waroon am la lendemain. Mm. maanaam ba élection yi jeexee le lendemain. demoon nañ site investé. non c'est pas ça le lendemain laa la wax ci élection yi. Mm-hmm. dañoo waroon daje saafonte université bërëb la benn benn la bi yoon nga woote grand théâtre ñëpp ñëw ñëpp ñëw am na si droit xam nga lu nekk réew da ngay xool fan la dëkk ba toll. Mm-hmm. nit ñi ñoom kii la bëgg.

ay actuellement dañoo paralysé. Mm. ay nit actuellement dañoo gumba. Mm. ndax dañoo toj sen beut maar day um si. Mm. ay nit ay nit ay nit actuellement nekkatuñ fi. ñaata sénégalais ñoo dé ci géej gi. tout cela parce que ay nit ñoo tok di fen. loolooy dëgg. ay nit ay mak ay punkal waaba jiba ñoo tok ci Sénégal di fen di monter di comploter di fen di monter ba ay nit dé légui les gens réagissent waaye ñi dañuy dagg xol sa xam si quand on regarde je pense toujours à Cheikh Ndiaye cloué au lit paralysé ça fait mal. oui après bu ay nit le toupé, le culot de l'ouvrir de nous dire. Mm-hmm. alors qu'ils ont eu à nous enquiquiner et à nous faire mal. ni ni na defal <laughs> Pazan justement il ngi wax waxal walum opposition bi et des dafa melni Sénégal xew-xew dafa am comme événement parce que nous sommes en télévision nationale nous avons ni opposition à la parole ce qu'on n'a pas l'habitude de voir un grand changement ndax